lu ne fang kenn du ko jeex looloo waral ministre bu urbanisme ak bu collectivité territoriale et de l'aménagement des territoires wàcc ci terrain bi fële ca mbëbës di mën a duut baaraam ci lépp loo xam ne nekkoon na ci kayit yi mais biñ ñëwee fii xam nga des fois di nga jàngat dossier ci kayit waaye boo ñëwee ci terrain bi mbir yi day gën a leer biñ ñëwee fii gis nañ ne sur quasiment cent gestion déchet bi fi nekk mooy gestion manuelle c'est des récupérateurs qui aujourd'hui ñoom ñooy tas volume mu déchet bi di ko récupérer mu doon liggéey boo xam ne liggéey bu metti la liggéey la boo xam ne tax na volume déchet bi fi naroon nekk nekku fi mais nag condition de travail la yoo xam ne vraiment yu doy waar la parce que ça dafa am impact seen santé am impact ci environnement bi am impact ci municipalité bi ak riverain yi. soppi doxalin nag dafa taxaw ngir liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci mbëbës méngoo ak jamono ngir yokku. dooleem. donc ñun suñ priorité mooy ñu focuser sur des unités industrielles yoo xam ne dinañu traiter déchet bi maa ngi ko doon wax sànq ne am na benn partenaire boo xam ne posé na benn offre sur la table pour ne moom déchets yi mën na ko def combustible solide. te ku xam ku ne xam na ne combustible solide baax na soxla nañ ko ci réew mi surtout au niveau industriel notamment Senelec Euh, mën na ko def engrais gis ngeen débat bi nga xam ne am na ci engrais yi ak ni mu chéré ak ni ñu ko war a ni ñu ko war a utiliser ba noppi déchets yi mën nañ ko utiliser pour def lépp luy pavage euh, donc nekk na option yoo xam ne moom teg na ko ci table bi mais avant ñu ci avance dañ def étude social bi xool environnementalement est-ce que ça tient la route et xool aussi d'un point de vue purement financier est-ce que ça tient la route aussi bu fekkente ne yëpp daje na dinañ ubbi mbir mi pour yeneen entreprise yi mën a proposer proposer mais daal jàpp leen ne ñun suñu option mooy mënuñu continuer décharger ne ci réew mi ñu koy traité de manière traditionnelle parce que mënta mënta continuer euh, nous sommes 18 millions d'ici 20 30 ans on peut aller jusqu'à cinquante 40 millions de sénégalais est-ce que di mën nañ continuer traiter déchets yi ak loxo yi ramasser ko ñëw di ko trier mënul nekk. ci visite boobu ministre bi gis na fa ay xale yoo xam ne ay tout tànk lañu mu nekk lu mu ñaawlu lool moo waral mu dogal ni gannaaw tey benn xale dootul duggati foofu ca mbëbës. ñëwee gis nañ ne animaux yu bëri yu fi nekk mais surtout xale yi te bokk na ci li ñuy wax Sonaged mi nga xam ne moo am responsabilité site bi il faut ñu def de sorte que les enfants ne doivent ñu nekk ci site bi fii du place xale xale huit ans xale onze ans xale douze ans amul lu muy def ci centre bi waaw adulte yi nga xam ne dañ ko fas yéene def mu nekk liggéey bu metti ñoom mën nañu comprendre enjeux yi ci nekk mais xale bu ndaw kenn mënu ko bàyyi ci site bu mel. mais pendant deux pendant trois ans yi euh, daanaka volume financier bi ñu dégagé gum ci montant bi ça a servi metre en place des équipes de surveillance d' ñoo ñu di organiser décharge bi tey mën nañu veiller à que les enfants ne soient pas présents am na équipe de sécurité bu fi nekk donc loolu lu ñuy préoccuper rek la mais nekkul lu nga xam ne c'est spécial. effectivement bi ñu jàngatee dossier bi def une analyse financière de projet gis nañ ne. projet bi démarré na depuis trois ans montant bi c'est environ deux cent six milliards mais gis nañu sur trois ans douze pour cent de décaissement décaissement la ce milliards. ce qui est problématique quand on connaît urgence su problème bi ak jafe-jafe bi mu doon biñ ko jàngatee itam gis nañ ne li ñu waroon a privilégié mooy dès le début. créer ay unité yoo xam ne dañuy transformer déchet bi en volume loolu lañ privilégié wul et d'ailleurs ñu ñëwee di def visite bi gis nañ ne am na ay chinois. yu fi installé ñoom seen unité di ko traité donc bu ma kan mënul wax ne mënta nekk. donc am na tey jii ñaari site usines yu fi nekk yoo xam ne ay chinois ñoo ko moom di transformer plastique bi. donc option boobu lañ bëgg a privilégier récupérateur yi fi nekk non seulement ñoom du ñu problème bi mais gëm naa ne ñoom ñooy avenir bi parce que tey bu ñu installé des usines yoo xam ne dañu war a am traitement bu baax les premiers ouvriers yi fa war a nekk je pense que ñoom la war a doon te boobaa dinañ am salaire yu baax am am retraite seen espérance de vie dina améliorer wu parce que nag nañu waxante dëgg mbalit mii ku ci liggéey pendant vingt trente quarante ans dina dina impacter sa santé bu baax a baax a baax te loolu ñaanaluñ ko benn doomu Sénégal euh, donc loolu daal lañ xam ne gis nañ ko ci sit bi liñ jàngatoon ci kayit yi ak liñ ñëw gis méngoo na ci jàngat biñ ci amoon liñu ñaan suñu borom mooy ñu mu mooy ñu wér ak tal ba yéene biñ am pour que rapidement ñu teg ay solution technique solution industrielle ak yi nga xam ne day revaloriser ñu mën ko installer dans ci courant année bi rapidement nit ñi gis ay changement ci gestion bi. non loolu c'est une urgence euh, fi mu ne nii par contre euh, chinois yi dañuy wax ne c'est parce que dama yàkkamti que damay def ndànk donc mënuñu def les mêmes erreurs parce que bi ñu analyser aussi gis nañ ne projet bi dafa projet dafa démarrer ba noppi ñu ñu nekk ci ay études donc ñun mënuñu ñëw def la même erreur. Mm-hmm. donc képp koo xam ne teg nga dossier technique ne yow mën nga accompagner état Sénégal ci traitement accompagnement déchets bi. dinañ jël temps jàngat sa dossier def les études xool environnementalement est-ce lu taxaw la xool socialement est lu mën a nekk la mais surtout xool financièrement ndax dina dem. parce que déchet bi déchets yi mën nañ ko valoriser. al am na alal ju ci nekk donc partenaire bi ñuy wut mais partenaire bi nga xam ne technique bi ñu andil dina njëriñ dinañu am njëriñ ma jox la exemple Senelec tey bokk na ci problème bi mu gën a am mooy pétrole euh, gasoil fuel bi muy jënd ni mu chéré. tey bu ñu fekkonte ne tey fexe am nañ benn système boo xam ne day jël déchet bi def ko combustible solide ñu koy jaay Senelec ci njëg lu gën a yomb je pense que day baax ci Senelec donc exemple boobu étude yooyu dañu war a càmbar ba mu leer nañu ne lii ñuy indi non seulement mën na andi combustible solide mën na andi ay engrais mais surtout municipalité yi nga xam ne dañ soxla pavage tey bëri na déchets yoo xam ne mën nga ko génne désinfecter ko renforcer ko en béton def ko pavage réutiliser ko procédure yooyu yëpp am na liggéey la laaj càmbar la laaj bon ñu ngi fi depuis cinq semaines euh, on a l'impression ko est là nag depuis un an parce que tellement nelawuñu tooguñu temps bu am yëpp dañ koy consacrer ci dossiers yi ak xool ban approche moo gën a baax pour sénégalais yi mais surtout moo gën a durable. waaw euh, bëgguma woon sax àddu ci question bi parce que en communication euh, mbëbës moo ma andi j'aurais aimé ma concentré wu ci communication mbëbës ba beneen jour mais comme laaj nga ma laaj bi. ñun li ñuy wax rek mooy bi ñu jëlee service dañu amoon benn plan ne plan bii la ñuy topp pour maîtriser ministère bi plan boobu dañ ko arrêté rien que recevoir les syndicalistes pour wan ne ñun on est là pour la décentralisation man ku ma xam-xam ne décentralisation je suis un amoureux de la décentralisation je suis un passionné de la décentralisation bokk na ci njëkk a xeex pour fonction publique locale am ça c'était en 2012 parce que j'étais conseiller technique ci ministère boobu travailleurs yi su li ma bëgg rek mooy décentralisation nekk benn source buy indi liggéey yu baax yu profession yu technique maintenant ñëw nañ recevoir nañ leen waxtaan nañ am na loo xam ne aussi foog sénégalais yi xam ko li ñuy laaj ci augmentation bañ ko xaymaa toll na ci vingt et un milliards de francs CFA ci nguur guy door a yegsi xam nga du loolu lu ñu war a càmbar la ba noppi on parle de seize mille agents recrutés te fonction publique ku ci war a dugg xam nañ niñ ci war a duggee donc yooyu yëpp bëggoon naa te ci loolu laa leen woo ne leen ñëw leen ñu toog ak centre de formation bi ak ministère fonction publique ministère des finances ñu jàngat 16000 agents yi naka la ñuy tegee benn stratégie ba premier ministre bu ñu koy dem te premier ministre président président bi ñu Ousmane Sonko ba ma ko laajee tax ne ma pare naa rencontre leen bu ngeen bu ngeen liggéeyee rek pare naa pour rencontre leen kon kay ñoom li ñu waroon def mooy nangu plan de travail bi ñu waxante ñu ñëw toog analyser proposer ay solutions mais nag bu fekkente ne ña fi nekkoon dañ daan woo nit ñi ci ay plan de travail mais daawuñ liggéey ça ne veut pas dire que ñun bu ñu leen woowee ñëw ñu xalaat liggéey ñoom duñu duñ ñu wuyu mhm. je pense que niñ naan présomption de bonne foi war nañu ko mun a mun a may donc ñu ngi continuer seen grève am nañ ci droit parce que loi Sénégal moo may nit grève par contre li ma def euh, lu lu lu yoon maye la en tant que ministre war naa mën a wax maire yi ne leen da ngeen a yor ay municipalité loi nee na municipalité ku ko yor même bu grève amee am na service minimum boo xam ne dangeen ko war a assurer ba noppi ma ne maire yi ay officier d'état civil ngeen seen agent bu ñu liggéeyul sax yéen war ngeen mën a ñëw toog ak ay assistant délivré ay ay ay ay pièces parce que loolu la lu waa wax le maire est un officier d'état civil yaakaar naa ministre bu wax loolu loolu warul andi coow warul andi wax donc li may ñaax nit ñi rek mooy Sénégal ñoo ko bokk te li fi nekk ci ressource ñun ñëpp ñoo ko bokk secteur bu nekk nag war nañ ko améliorer am na ay joyante yu ñu ci war a def waaye euh, warul nekk euh, sulli euh, saxal mbaama mbaama mbaama sulli fii entre yéen ñi ma tàllal micro yëpp ay entreprise ngeen nekk nekk fa ay travailleurs di liggéey xel xalaatul nga ne ci entreprise donc ñaari at liggéeyuloo entreprise boobu bu ko bu ñëpp defee loolu entreprise yëpp ay tëj Sénégal donc deux ans grève man comprendre naa ngay deux ans ngay xeex ci benn sujet mais assurer le service minimum na maire yi aussi dimbale citoyens yi tey am na Sénégalais yoo xam ne perte nañ ay visa ñii war a def concours soxla ay kayit mënuñ ko am nit ko aussi revendiquer sa droit c'est une bonne chose mais xool aussi sénégalais bi ne sa wet nga xam ne am na soxla ci yow le minimum assuré ko ko le temps ñuy trouver solution am nañ yaakaar ne d'ici quelque temps on va le régler parce que foog ñu toog ak waa fonction publique toog ak waa budget ñu régler ko trouver des solutions teg ci table bi lu mën a ne mais en attendant citoyen balaa ngay laaj say say euh, say droit dafa am devoir yoo war a def loi bi leen may ñu grève moo leen ne assurer leen service minimum loi bi may maire mu mën a toog ne man maay maire moo ne maire aussi officier d'état civil nga am na le minimum loo war a loolu rek laa leen wax ba noppi ne leen nañ lay ñëw ànd liggéey yaakaar naa un ministre war na mën a def loolu sans pour autant coow am wala wax am. Mboussit Baye am nag ñi nga xam ne ñoo fa nekk di liggéey di récupérateur yi donte rafetlu nañu jaar bi nga xam ne ministre bi jaar na fa laaj nañu seen nekkin gën a ñoŋ lu mel ni ay poste de santé ngir mën a faju